ni que loolu lu ko wund mu di euh, tey dañoo xëy ak benn projet de loi numéro 10 2021 modifiant la loi 65 60 du 21 juillet 1965 portant code pénal euh, loolu d'ailleurs euh, finalement adopté nañ ko à l'Assemblée nationale ce vendredi 70 voix pour 11 contre alors déjà naka la ñuy analyser loi boobu parce que ñu bëri ñu ngi jàpp ne que c'est une loi liberticide président Euh, jërëjëf <clears throat> soxna ne d'abord damay ñëw ci problème mu Alassane bi euh, dama ko seetaan sànq ci journal bi maanaam bi muy door a génn fi ñu ko tëjoon muy joxe information euh, ça m'a beaucoup plu dama koy suivre bu baax a baax mais gis nga démocratie nattukaay bi ci gën a wér mooy presse c'est-à-dire réew dem fekk fa presse bu libre mën ngaa xam ne démocratie am na fa réew moo dem fekk fa démocratie man ngaa xam ne libre presse bu libre dafa am loolu mooy benn ñaar presse mooy bëtu askan ndax moo koy wan lu munta gisal boppam presse mooy nopp askan parce que moo koy dëgtal fu noppam ak gutt aw askan nag ku doon bëtam dooni noppam dañ ko war a fonk dañ ko war a respecté encore une fois maa ngi ñaawlu li ko dal di ko masawu di encouragé pour du problème de des médias c'est un problème de presse mhm. ak force de l'ordre le SYNPICS doit prendre ses responsabilités les le patron de presse doit prendre les responsabilités parler cette fois-ci au président de la République pour que les policiers et gendarmes respectent la presse dans son travail c'est-à-dire même bu fekkoon c'est même dans la guerre di tirante bal sax presse de su ko fetal à plus forte raison nag quand même di ko di ko di ko fitnaal kon encore une maa ngi maa ngi masawu euh, Balde di leen yéen di leen masawu yéen itam yéen confrère am yi ak consœurs yi di wax ne loolu nañ fexe ba mu dakk parce que day gàkkal démocratie. de plus en plus dañuy gis phénomène boobu. presse menacée terrorisée. non dafa bëri xam nga Sénégal dafa am lu fi nekk loo xam ne dañ ko war a dañ ko fee war a jógee Sénégal da ngay dégg ñu naan pour alkaati du weesu dóore démocratie dóore amu ci démocratie alkaati wër sa dóore bay bañ a weesu dóore loolu dañ ko war a teg fi suuf. alors maintenant pour loi bi. Mhm. wax dëgg yàlla man bi ma liiree loi bi. déglu ñuy wax damaa jàpp ne wax dëgg yàlla damaa mel ni ku nekku Sénégal. ah bon. gi nga nee ne loi bi ñuy soow 2007 la ñëw assemblée nationale. effectivement. ñu wote ko. booba Abdoulaye Wade mooy président de la république. Macky Sall nekk premier ministre normalement loi bu tey bi waa PDS dañ ko waroon a wote normalement loi bu tey bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp dañ ko war a wote c'est-à-dire que waru am coow. kon xëy na waa PDS ñoom wax Ablaye Wade lañ doon weddi waxam parce que 2007 la ñëw assemblée nationale 2016 mu dellu ci muy 291 79 1 bi laay wax nag. 2016 mu ñëw assemblée nationale ñu yokk ci lenn ne kuy terroriste bu ñu ko jàppee dañ koy tëj peine de mort astafurlah dañ koy tëj travaux forcés 2016 ñu def ci travaux forcés diggante 2016 ak léegi travaux forcés ñu dindi ko kenn waxatu ko ñuy wax léegi réclusion criminelle. ñu mo loi bu bees bi lañ ci la ci soppiku ak deux mille ak deux mille sept ba ak deux mille soixante dix neuf bi mooy réclusion criminelle au lieu de travaux forcés kon wax ne loi bi c'est une loi liberticide loi bi am na fi quatorze ans bu doon loi bu doon loi liberticide opposition du gagné Dakar de euh, ak grande ville yi deux mille neuf bu doon loi liberticide assise nationale du am Sénégal bu doon loi liberticide kii kii alternance du am deux mille. mais mais ban pertinence la am ñu ramener ko tey sur la table déjà euh, par rapport ak euh, événement yi fi xewoon. parce que li ci yokk mooy yi fi jotoon. Euh, mois de mars dernier xam nga bu bi dañ ko indiwaat kon lan mooy pertinence su ñu indi woon ko foofu parce que précis bi ñu bi ñu terrorisme dañoo préciser peine yi ñu teg ci ku nekk terroriste muy travaux forcés travaux forcés léegi kenn da ko waxatul. léegi li réclusion criminelle la ñu wax kon la taxawoon ñu indiwaat ko 2016 pour dugal ci de travaux moo tax ñu indiwaat ko 2021 pour dugal ci réclusion criminelle mm. et non travaux forcés kon encore une fois ay wax am waru ci woon am ay wax waru ci woon am maintenant nag wax ji liñ ciy jàngat am na certes mauvaise foi de l'opposition mais li ma gës dëkk dëkk mooy ñàkk kóolute ci diggante classe politique bi beneen bi ci des. mais mais mais honorable a teg mauvaise foi de l'opposition également non dama leen non man fu may xam nga man dëgg amu ci piite am diggante dëgg ak dëgg rek laay faral opposition bi li ma jaaxal lu tax ñu toog ba démb ñu commencé wax or la loi a été déposée à l'Assemblée nationale le quinze ñu distribué ko député jox leen ko le 16 lu tax boobaag léegi waxuñu le le 18. commission kii nu mu tuddati comment il s'appelle euh, la conférence des présidents def réunion opposition nekk fa non inscrit nekk fa ñu programmer la plénière le mardi de boo ko dégg opposition wax ñu ñëw mardi 22 ñu def commission adopté loi bi commission rapport commission boo ko dégloo déggoo ci benn objection boo xam ne opposition def nañ ko ci par rapport à cette à à loi à cet article kon lu tax ñu toog ba démb ñu naan c'est une loi liberticide c'est pas une loi liberticide. d'accord li problème mooy li am nag mooy ce qui est manifeste mooy am na problème de ñàkk kóolute dans la classe politique sénégalaise te nag ñàkk kóolute googu. est-ce que c'est pas guerre ñàkk kóolute. non non non euh, la bonne guerre euh, euh, sor nee ne mooy looy wax rek na nekk dëgg. li ñu wax ci loi bi ne moo ci nekk du dëgg nekku ci ñoom xam nañ ne nekku ci parce que bu ci nekkoon 2007. bu mu nekkoon loi liba libre ba léegi kon avancée démocratique yi Sénégal am kon duñ ko ci mën a am kon jooju wax loolu du waxut amut alors maa ngi ñëw ci ci ci ci ci honorable député Zator mais juste damay poser foofu benn question rek à sëñ Saliou xam naa nga tontuma ma ci sëñ Saliou euh, laata ñuy dem ci est-ce que euh, tey jii mën nañ jàpp ne que euh, honorable président lu mu wax mën nañ mën na am fuñ ko teg. ne que loi boobu. ce n'est pas une loi liberticide. non loolu moom loolu ma ci ànd tegoon nañ ko fii ma ci ànd xam nga aussi. booy jàngat Abdoulaye da ngay xool exposé des motifs yi loolu kenn du la ko jàngal exposé exposé des motifs yi amoon en 2016 ak yu yu yoon bokkul c' est totalement différent bañ ne ko balaa la loi on a dit des innovations majeures innovation majeure kay loolu kay ay tubaab la nañ mooy am na ay coppite yoo xam daf ci am. mais coppite est ce que du blanchiment des capitaux bi ñuy wax on a requalifié déedéet déedéet ñuy wax association de malfaiteurs y a une association de malfaiteurs loolu dañ ko dañ dañ ko redéfinir ça veut dire que léegi aujourd'hui pratiquement mën nañu wax ne ñëpp ñoo xam ne ils sont organisés pour or def dara mën nañ leen sax qualifier de euh, comment dirais-je de bande de mal de l'opposition a raison d'avoir peur. mais effectivement le problème le, le, le ce niveau-là parce que aussi bu bëggee tey déjà maa ngi dégg quelqu'un ko am Abdou Mbow ba waxee ñu ne je ne sais pas la piraterie maritime moom lañ ci yokk. moom lañ ci mhm. moom boo xam ne kay wax dëgg yàlla amul coppite kay kon lan moo waral tey ñu ko. voilà le problème amul amul amul benn ba pare ñoom ñuy indiwaat loi bi alors que boo xoolee exposé des motifs yu yi exposé des motifs yu 2000 c'est totalement différent totalement différent et puis il y a des rajouts encore ci ci ci euh, euh, comment dirais-je l'article encore moo tax président yow tamit am na loo xam ne yow tu étais à l'Assemblée nationale en peut-être que fi ñu toll nii tu n'es plus à l'Assemblée nationale mais li nga xamante ne yokk nañ ko ci par rapport boo xoolee di nga xam ne ñaari quand même c'est totalement différent oui. on a requalifié ce qu'on appelle de comment dirais-je euh, de malfaiteurs de, de, de malfaiteurs waaw mm. ah. ah. président maa ngi ñëw ah. président 2007 non non sul non non 2007 mm. la wax mm-hmm. constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont lorsqu'elles sont commises inter euh, commises internationalement intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public et le fonctionnement normal des institutions nationales et internationales par l'intimidation, la terreur et infraction. loolu mooy loi 2007 bi nga ñëw 2016 lan moo ci yokk constitue des actes de terrorisme punis de travaux forcés à perpétuité moom lañ ci yokk 2007 2016 lan moo ci yokk est un, un, acte terroriste est défini par l'article 279 tiré qui dispose qui, qui voilà ça les actes terroristes constituent des, constituent des actes de terrorisme punis punis de réclusion criminelle à perpétuité. mais lii rek est-ce que bu fekkee am impertinence dafa am 2007. ñu ñëw 2016 yokk ci dara kon wari su ko woon indiwaat 2016. mais li changé si s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît dama ne la ca nekkoon lu tax ñu indiwaat ko 2016 parce que daa am luñ ci yokk la tax ñu indiwaat ko mooy daa am leneen luñ ci yokk maintenant loi boobu bu fekkee daal liberticide parce que la le maanaam la quintessence y a pas de changement li ci yokk mooy les peines prévues de terrorisme dara changé wu ci. de 2007 2007 à 2021. Mhm. alors euh, énormément de flou. mais euh, ngi ñëwaat. énormément de flou ne peut être ñu ngi koy wax tirer gauche ñi tirer droite pour une question aussi centrale euh, ñoo waxu terrorisme est ce qu'il ne fallait pas en discuter ñu bëri xam exactement de quoi il s'agissait avant tey jii ñu koy dem di ko adopté. je pense que le président Moustapha Diakhaté qui était mon président. ba ñuy voté loi bi en 2016 ma fàttali ne euh, liggéeyu assemblée nationale mooy toujours indi ay coppite ci loi yi amul benn loi bu ñu mës a voté ne kenn dootu ko laal ila yomul xiyamati j'en profite pour rendre hommage aux députés à l'Assemblée nationale à la tête duquel le président qui a quand même géré les débats tey dans une voilà amul kenn ku bëgg jël kàddu te joxuñ la ko xam nga président Moustapha dafa wax lu am lu am am solo. avec tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. oui mais mais tout gisoo benn député. bu yëkkati loxoom ne dama bëgg wax ñu ne ko doo fi waxee amul donc le règlement intérieur a été respecté du début à la fin maintenant assemblée dafa am procédure dafa mel ni sa émission bi am na fil conducteur loi bi egsi na bureau day jaar conférence des présidents ñu arrêté calendrier dem commission technique ce qui arrive souvent mooy malheureusement les députés de l'opposition du ñu siéger commission technique parce que